assalamu alaykum mbokk internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar euh, di wax képp kuy gën ci chaîne bi ñoo ngi lay ñaan nga abonné te bés cloche bi ndax vidéo bu ñu dugal rek euh, nga bokk ci ñu ko njëkk gis wéren di like wéren di commenter également te di partager vidéo yi c'est très important. comme ni ñu ko daan faral di def rek aujourd'hui dañuy ñëwaat ak yéen ci seen émission euh, découverte découverte nag bu ngeen ko déggee bépp jeune boo xamante ne da nga am talent am ay origine sénégalaise donc dinañ ko indi fii. Euh, ci chaîne bi ngir ngeen euh, découvrir ko donc aujourd'hui nag euh, ki ñu leen fas yéene andil pour ngeen découvrir ko moy Ilay Camara Ilay Camara nag c'est un jeune latéral droite très prometteur bo xamante mi ngi ci club boobu di Anderlecht donc euh, am nay origine euh, sénégalaise même si que sax il est né en Belgique donc joué na ci petite catégorie euh, yu sélection Belgique bi notamment ci U15 yi ak U16 mais gën na fa football depuis 2000 2018 donc instant bi je pense que mi ngi ci mi ngi équipe réserve bu bu Anderlecht de temps en temps dañ koy woo ci équipe première bu Anderlecht mais mi ngi am 19 ans joué jouée, le 13 mars délivré deux passes décisives. Euh, donc actuellement ils rêvent il rêve de jouer en équipe nationale de Sénégal euh, d'après information yi euh, jouer équipe nationale du Sénégal en tout cas c'est un latéral droite très prometteur bo il est polyvalent Il jouer comme défenseur central man jouer comme arrière droite arrière gauche même est défensif daf jouer donc. Euh, c'est des genres de joueurs yi nga xamantene actuellement ñom lañ soxla ay joueurs yi nga xamantene dañuy def football moderne un jour avec beaucoup de qualité euh, surtout sa technicité sa vivacité euh, offensivement fay défensivement également donc man comme jeu in tous ay profondeur donc moom daal du xaar dafay dem ca kaw di centrer ay et tout ça donc c'est un latéral moderne loolu et que et que jouer ci équipe nationale Sénégal man damay sawar di def ay vidéo euh, toujours ci jeunes qui ont envie ngir porter euh, la tunique du Sénégal donc te booy bi ci il faut jouer euh, pour l'équipe nationale du Sénégal de Sénégal kon li ci dirigeant yi ñu effort ngir jéemoo dem ci boy yi woo leen même boy yi bu ñu bëggee jouer te demoo woo leen tamit duñu ñëw parce que duñu am possibilité mais maintenant euh, la possibilité est là euh, mën nañoo mën naa jouer ci petite catégorie même bu jouer ci équipe A bi mën naa jouer ci petite catégorie bu équipe nationale bu Sénégal muy U23 donc euh, U23 nag Demba Mbaye moo moo yore li nga moo leen di tàggat kon Demba Mbaye instant bii nii. Euh, warul toog war naa dem convaincre boy bi indi ko ci équipe U23 bi ngir mu apporter ñu dara ëllëg euh, ci équipe nationale bu Sénégal A bi en tout cas c'est un jeune très talentueux euh, boo xamante ne vraiment à l'avenir mën nañoo apporter lu bare bari mi ngi tudd Ilaay Camara donc mbokk yi leen indi loon di leen wax wéy di like wéy di commenter caa ngeen jëf.